sëñ Touba. Hmm. tey sëñ Fallou sëñ sama yaram dafa sedd. dama bëggoon nga takkal ma juróomi bayit jox ma ko ma téen ak moom sànni ko ci jaww sama yaram tàngal ma fii la taxaw ne yàlla kenn la Seydina Muhammad moo gën ko yàlla bind tubaab yi na ko li nga nekk ci say mbokk tax nga koy wax waaye bu la génnee doo ko wax ñu génne ko teg ko jaas yi ak pistolet ak fett yi teg ko ci mbagg yi mu ne la mu leen waxoon ca senegal ngeen samay ngeen samay mbokk ma wër moom laay waxaat tayaxanu anna ni lillahi xabdul xaddimu li rasulillahi ñàkk a saa si discours laa tudde xasida gi lam wax fii laa wax fee daa kennal yàlla ber Seyduna Muhammad tas ko naa

li rasuulillaahi waat naa ni maa ziltu saa tabarruyi min kulli man bil kufri suu tajarruyi wala udaahim saykana suri بالتبصر سبحانه ربني إلي ألتجي ومن تفريج الكربه أرتجي سبحانه ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد سكته ولا أزال أشكره وبالثاني والثاني أشكر أهبدها بدينه الإسلامي موحدا له إسلامي والتصردوا لي بقولي يوما جميع الحال العالمين جمعا الله ربي ظاهرا وباطنا حيث يكون راينا اوقاتنا والمستوى والذي اليه صلى بكثير هلا غلي يا جمله الخلق لي القوم فيه يهوج مجرمون اللوم بكون الدار عبد الله خطيما عبد الله محب كل مسلم ومسلمه مبغض كل مجرم ومجرمه كتبته أحمد صلاتي على النبي ليسي صلاتي شيخ مكة باي مكة شيء علاجي تكل كسر تبا لي لي صلاتي سن بسيرو على النبي لا صلاتي كتبته على النبي فيه jërëjëf katabtuhu ahmada salaati ala nabi la salaati sëñ Ablaye dama doon essoufflé wu noonu rek dëgg la yaram bi tàng ndax ñun xasida ak rek moo nuy tàngal dëgg la maa ngi ñëw ci ba tey sëriñ Touba sëriñ Touba ku doy war la sunu waa ji hmm. dafa wax ni man maa jiitu sëñ Tuubaa nee na maa jiitu. moo jiitu. waaw nee na yàlla yit moo ma jiital. illa yaqaada rabbiyal muqaddamu sabqan bi man alal waral muqaddamu wax ni bi may jiitu sa Ablaay hmm. suñ boroom daa tàllal ne ma am ma ni hmm. tekk taxaw mu ni ma ahmadu ma ni mbàkke mu ni ma demal ca kanam yaa jël pee maddaliyal badion maalam yusbaxi li mislihi nee na lim ma jox nag musu koo jox jaam bu wàcc ci suuf si la ilaha illallah ba noppi teg ca ne ma waqaale lii abdiya man yow mu ne ma isbiq jiitul yow sëñ tubaa sëñ tubaa ne sabaqtu jiitu naa ne gees yàlla ne ko wax ma ñi ma jiitu ak ñi ma jiitewut ma set cité leen ci bala maa bindaale koo xamante ni moo ma jiitu mu ne ko bindal ne kudul yow yaa nekk ci kanamam yow góor dut la romb mu ne xayriya ne sun borom wax ma contrat jiitu bi fu mu yam bu ñu fa yeggee bu ma keneen jiitoo ma xam ne koo ko ma mu ne ko fii ak kenn dootu la romb kenn du làng ak yow sax xuma la ak di la romb bindal ba àjjana yow sëñ Tuubaa yaa jiitu sabaqtu xayriya ilal jinaani ma annabiyil qurashil adnaani ñu ne ko Mbàkke waaye sa jiitu gii xanaa